waxuma la waxuma la nga far de sax bëgguñu ku leen faral parce que <laughs> boo leen faralee duñ la defal dara mais gars yi ku neutre ah non ku neutre gars yi xoolal xoolal ku neutre lu ne lu la neex nga am ko ci réew mi mais boo engagé woo xam ne la ah booy nag booy ñun vraiment mënuñu la sax fréquenter li lay dégg nii sax gars yi gis ngay dugg fii sax ah su mënoon bañ a am day moo gën parce que parce que ah mu ne waaw sama temps bi jeex na de kon Sonko ñëpp jàpp nañ ku ñu war Nous wara war la xam nga réew dañ koy dañ koy gouverner avec intelligence waa ji nee na jàpp na ni moom li ñu di defal ni arrestation arbitraire la dégg nga diwax ngeen dans le cadre d'une instruction mas ngeen ko jàpp mettre ko sous contrôle judiciaire ah xam nga loolu mooy lan mooy bàyyi nañ la nga dem sa kër heure bu ñu neexee ñu convoqué la auditionné la xam nga prison bi mu nekk na la xam nga juge bi du ko fekk juge bi saa yi soxlaa Ousmane Sonko day ne andil leen ma ko Dakar ah ñu andil ko ko bu posé ko question ne delloo leen ko gars yi delloo

ni kër gi si boppam day am restriction téléphone est ce xam am xam bu ah suñ ko fi fi duggee yow dootoo téléphone Voilà. ah am réseau doo am internet waaw xam nga kon euh, euh, moyen yi ñu war a mun régler problème ko may ko afiyam ba pare di ko konne di instruire affaire bi mun na ne xam lan mo pap li garaawoon xam nga moy lan moo ñu yewu suba tel ñu juger Ousmane Sonko condamné ko ba pare demu ñuko jëli lolu mom ken mënu si don dakor. lolu ken mënu si won d'accord mais dem ngeen jëli ko teg ngeen ko ay jour mais wane ngeen ni puissance état mu ngi fi ba léegi ah mooy li Idrissa Seck waxoon ak noo munti toll ak loo am am doole loo bëri bëri garde du mu la gars yi bëggee ne coppet dañ lay ne coppet te bu la fi ñu la bëgg teg ngay dem teg toog <laughs> Idrissa Seck wax na dëgg de loolu mooy la puissance de l'

waa ji lott na dafa def grève de la faim parce que dafa jàpp ni ko arrestation arbitraire loolu droit am la léegi léegi li li war mooy nga dawal affaire bi avec intelligence Karim Wade tëj nañ ko deux ans deful grève de la faim Khalifa Sall tëj nañ ko deux ans et demi deful grève de la faim kii tëj nañ ko def na grève de la faim libéré ko léegi moom ak sénégalais yi la mais si l'irréparable venait à se produire ah Kenya ñaanu ko de loolu de kenn ñaanu ko waaye nit nag da ngay ay même les hypothèses les plus renversantes. Ah Si l'irréparable venait à se produire, Ousmane Sonko, il porte l'espoir de millions et des millions de Sénégalais et d'Africains. Hein Et même d'Européens. Hein ah ah Attention, de que y war yir

Ousmane ko ñu ko xam ñu ko xamul Ousmane Sonko ëpp turandoo fu mu ne nii c'est un phénomène nañ ko nangul ni c'est un kan kon euh, Pape damay bañ a jeexal lépp dégg nga ndax gan gi gan gi mooy bi ñëw 13h damay génn léegi dem naan ay café géré def nii xam nga 13h ma yéegaat fii la ñuy defee non dañu eh dañu dem VIP dégg yóbbu ñu VIP ah ah waaw non invité bi il faut ko VIP ah non non non non man defuma fi émission de léegi VIP rek laay defee émission non non doo ñu fii de kon mbokk yi ba ci kanam 13h damay dellu si waat ànd ak soxna Aïssatou Diop Fall. ñu taseek suñu gan bi ah ah <laughs> du du du yomb ci moom de xaw ma xaw ma am na ay conseillers xaw ma ndax gars yi wax nañ ko mais du yomb ci moom de tey <laughs> ba ci kanam.